سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل أسعى ثابت الأقدام بيقين فلا دنيا الورى يوما ستغريني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار والتابعين لهم wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko delloo wàccuwaay bi mu yelloo ñuy julli di sëlmal ci sangu-sang yi ak waa këram muy sunu yenant muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu den di dotti leeram fa moom ak njabootam ci biir loolu mbokk yi ñu yëkkati kàddu nuyoo muy jàmm yàlla ak xéewalam yërmandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko dooti ci mboolee mi mindeefam mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen beneen yoon di leen ziyaar di leen sargal di leen tatagal ci weer bu barkeel bu màgg bi nga xam ne tawfiiqu borom bi subhaanahu wa taala la ñu dimbalee ba ñu teewe ko di ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp lu ci yiw yàlla nañu tawfiixal ñu mën ko màng mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen beneen yoon ci sunu jotaay bii ñuy amal ci koor gi tey di sunu juróom benneeli jotaay incha allah mbokk yi sunu jotaay ba tey biñ doon waxtaane ci sunu jotaayu weeru koor tey ci sunu juróom benneeli jotaay mooy jullit bi ni mu waree daw ay fen waaye nim ko ñàkk mën a sancee ci boppam waaye mu doon koo xam ne dafay dëggu di ca góor góorlu ci di ca woote ci di ca jëf waaye itam di ko jëflante lu tax ndax fen day dafa doon loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala bëgg ko ci ab jaamam waaye du ko jegaloo ab jaamam benn yoon moo tax ca xadiisu ibnu mas'ud ba yadib sallallahu alayhi wa sallam ni dëggu dafay jur mbaax mbaax di jur li nga xam ne moom mooy àjjana jullit bi du deñ ji dëggu di deñ di dëggu ba borom bi subhaanahu wa taala bind ko boole ko ca ña nga xam ne ñoom ñooy ñu dëggu ña waaye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ci teg mu ne li nga xamante ne moom mooy fen daf lay jural ab mbonte subhaanallah kon ndekete fen sax dafay wane siimaay nit ku bon maanaam dafay wane ne yow nit ku bon nga maanaam màndarga googu la lay génneen mu ne te li nga xamante ne moom mooy mbonte mu ne daf lay jëmale safara wala iyaazu billah dëgg-dëgg ku koy jàngat dangay xam ne fen moom ab mbonte la ndax sosal nit yàq nit ñaawal daram am na ci ñoo xam ne dañuy dem ba ci fen yi nga xam ne moom lañ leen fenal moo leen mujjee jural dund gu yàqu mënatuñoo génn mënatuñoo jëflanteeg seeni nit ñi ci ñàkk diine moom nga xam ne amuñu dara lu ñuy calculer seen digganteek seen borom dem na ba da leen di tàbbal dund gu yàqu moom mooy dañuy mujjee xaru may laaj jaamu yàlla bi nga yàqu dundam ba yóbbee ci lii nan ngay def ëllëg ak moom ak sa digganteek sa borom ndax di xalaat lii nga teg sa mbokku jullit su fekkonte ne yow la tegu sa kaw mbaa sa njaboot ban yëg-yëg ngay am te ku nekk xam na ne xol moom ni mu bindoo xol la rek li ngay natt muy diis du oyof ci kenn kon yow soo ko dunduloo sa bopp di nga xam ne lu metti la te yow mi koy def sax di nga xam ne lu metti la kon lan moo tax nga war a doon koo xamante ne dangay daal di sos kon ndekete fen ñàkk a dëggu fi muy jëme nit moom mooy fan moom mooy safara ginnaaw bam la defee nit ku bon subhanallah di laaj ndax bëgg ngaa dugg safara maa ngi njott ne buñ la ko laajee léegi nga ne déedéet kon lan moo tax ngay séq jéego ci li la fay yóbbu waaye chaque jour daal même question bi di laaj yow mi ñàkk a dëggu bay fen mbaa ngay sosi fen soo defee loolu wala boo yoree melokaan boobu wala boo ko jëflantee lan la lay jural du la jural lenn lu dul mu boole la ci ñu bon ñi ba pare jëmale safara wal iyaazu billah yàlla nañ ci borom bi subhaanahu wa taala musal kon lan moo tax ngay jëmbat sa bopp mbir moo xam ne safara la la jëmee waaye yamu fa de mu yóbbee la ñu bind la ca sa boroom nga bokk ci fenkat yi loolu wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ku du deñ di fen di ñàkk dëggu di wax la ca ginnaaw dëggu ba ñu bind ko ca borom bi subhaanahu wa taala mu bokk ci fenkat yi wal iyaazu billah moo tax yow miy dund ci àddina léegi léeg da ngay gis kaa yoo xam ne yow dangay laaj sa bopp dëgg-dëgg kii moom dañu ko bind wala ndax li mu nekkee tayeef la allahumma laka alhamdu ndax dangay jaaxle ci moom daraja bi mu egg te nag mu xeeb ko lool yëgalu ko yaramam donte ne moom sax jàppee na boppam nit ku dëgguwul la ak fenkat la donte ne sax dem na ba ñu jàppee ko ne kii ab fenkat la damay wax ne lu tax jullit mën a mën a doon ko sàggan ba egg xadd fii tey ci jamono jii ñu toll mucc ci bàkkaar lu jafe la léeg yow bu ñàkk dëggu nekk ci yow waaye di gis koo xam ni moom nekk na ca moom te dina la ko indil te dina fexe nag dina fexe ba boole la ca ci ñi nga xam ne ñoom dëgguwuñu lu tax ndax indil na la wax joo xam ne sa kàddu dina ca tàbbi xam nga borom bi nee na bu leen wax loo xam ne amoo leen ca xam-xam waaye su boobaa di nga dugal sa bopp ndax di nga ci àddu la ngay wax wóoru la am na ñoo xam ne teex sa moo leen koy yóbbee teex sa gi moom mooy lan moom mooy sa benn mbokk wala sa jegeñaale walla sa sœur wala sa am di jàmm indil na la ci koo xam ne moom doon na ci yow loo xam ne yow jàpp nga ne ñàkk wax ci li mu indi da koy suufeel wala dina ko teg kersa bu ko defee su boobaa sa sàggante yóbbee la nga tàbbi ci ay bàkkaar ndax yow yaa ngi gis ne li rafet moom mooy tontu ko ci la mu indi waaye dama doon wax ne gis nga li rafet te gën a rafet te amul leneen loo xamante ni dina ko féete kaw ci rafetaay moom mooy nit ki nga xam ne indil na la ay waxi jàmbur wala ay mbiri jàmbur mu leer na ne la muy wax sa yoon nekku ca am na ñoo xam ne yàlla xam na ni boo leen jegeyantoo ñu lay envoyé tontu woo ci seen feebar rekk da leen di jaral ñoom ñu déplacé wu pour ñëw ngir lañ la bëgg a eggee faaw nga tontu leen ci moom nag bu amee fullaay egg ci darajaay mën a yàq nit tax crédit doyatul sax nag moom loolu ëppale na ko boppam wala xeeb na ko mu déplacé wu rek ngir mën laa jox la nga xamante ne moom la bëgg nga fanaanoo ko su boobaa nag day daal di métti subhanallah neexoon na waaye neexatul bu boobaa yow itam war ngaa mën a am fullaay raddu ko ci li mu def su fekkente ne koo bëgg la war nga koo mën a yedd moo xam ne yoon bii mu jël du yoon bu baax ndaxte tempsam boobu nga xam ne paase na ko su ko paase woon ci ay istixfaar wala jàngub li nga xamante ne moom mooy diineem mën na caa jariñu lu bëree bëree bëree bëri kon ñaata temps la rey dara indiwu ko nag lu dul dégg nga li ma dégg ak nga li xew nangam laa la bëgg a baaxe wala ñoo xam ne seen tànk yépp ñu ngi koy dox ci lan ci ruutale man damay wax ne ndax ñoom dinañ bàyyee xel même su fekkente ne benn minute la ñuy jël ñu yëg ne ñoom lii ñuy jëf ak di ko def ak di ko wax am na ñoo xam ne du ñu rate dara te loo def mbaa nga wax ko dinañ la bind. waaye nga doon koo xam ne dinga nga calculer ne tuuti ne àddina nekkul luy sax lan moo fi jar ma war a ñaawal te fii nag loo fi def boo baaxee dinañ ko wax boo bonee dinañ ko wax mu leer la ne yow. bis dina ñëw nga tëdd sa loxo ndeyjoor yow kase nga wet sa bàmmeel ana sa digganteeg sa boroom ndax yaa ngi xalaat loolu am na ci ñoo xam ne day wax ne ñoom tey xëccoowuñu pour sa jaar ya déedéet waaye ñoom lan la ñuy fonde mooy sayi atu jaariya jëf ju bon ju ñaaw joo xam ne même tey bu ñu dëddoo àddina sax jëf jooju dafiy des di law tey ñaata ci ay nit ñooy jékki-jékki ne diw day yaa ngi fàttaliku ba mu defee nangam ba mu waxee nangam kenn mu ne ay yow ay yow tuddal yàlla yow nga wax astaghfirullah ndaxte kooku ndeysaan gaañu na di subhanallah lan la ci mën moom tey mu ngi tëdd ci bàmmeelam léegi loolu may laaj su fekkente ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko cee nam moo mbugal moom jaamu yàlla bi naka lay dundee loolu te mu doon loo xam ne moom moo ko yóbbee boppam te bi mu koy def mi ngi koy defee ci tayeef ndax lii tamit du ko ju bon kase ju ñaaw la kon ñun tey yor nañu ay feebar yoo xam ne dañu cee war a jug kenn ku ci nekk daf ko war a mën a jaral mu doon koo xam ne daf cay xeex ak boppam damay wax ne gis nga ki feebar moom moo gën a xam la mu feebar lan la ak fan la toll ndax gis nga ki tawat ba dem hôpital la muy wax docteur ba loolu rek ca la mën a sukkandiku waaye moom yëg-yëg ba moom ci boppam moo koy sentir kon kenn ku ci nekk yow xam nga doyowu sa feebar fan la toll bu ko defee bul nangoo doon jullit bu sàggan góorgóorlu sa digganteek sa borom raxasal say jukko ci di tuub di dellu ci borom bi subhaanahu wa taala bu la jaaxalee ba nar laa të jooytu ko sa borom ak ay sujjoot jooytu ko sa borom ak ay sujjoot jooytu ko sa borom ak ay sujjoot te nga góorgóorlu nga def ay effort même su fekkente ne effort yooyu daf lay yóbbee sax ngay pine sa bopp dama ne da koy jar su fekkente ne dangaa bëgg a baax kon di wax ne incha allah fii la ñuy yëkkatee sunu jotaayu tey di leen jox dig daje ba suba incha allah ci kàttanu yàlla di jéggalu di baalu àq di wax ne lépp lu ci jub ci borom bi subhaanahu wa taala la lu ci dëng ci mata di doomu aadama la dañ koy delloo sunu bopp waaye ñu ngi koy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala di leen ko jéggalu jërë ngeen jëf ahsanallahu ilaykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وحب الله يسري في شراييني وأعصاه فيغفر لي ويرزقني ويعطيني سألت الله سألت الله